c'est-à-dire may ñëw ci ci cette contrepartie la dama bëgg ñu rappale l'esprit bi xamante ne moom la président Macky Sall demandé à ce que ñu dem vers un xam nga tey dañuy dem élection ñu wax ko ñu bañ ko wax y a eu des contestations très forte et même des accusations wax naa ko sànq qui pose la problématique de la sincérité des résultats te loolu c'est important Amadou xam nga yow sànq ba tey yaa ngi yaa ngi commenté mbir mi di ko xoole ni mu la arrangé dem nga sa ba ne waru leen xool euh, ëllëg joomaay li muy def ak lu mu dul def seen yoon nekku ci te pourtant yow tu as anticipé ba jéem a xam ñun suñu candidat ah ndax dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko écrasé voilà yaa ngi anticiper même di di di justifier wu di xool ñun ban ban ban référence lañ am par rapport à ce qui s'est passé alors que Pape wax na lu leer nañ tey Macky Sall c'est pas la première fois muy muy muy muy surfer vers la transparence tey mais bien sûr même bi même bi mu nekkee dans dans l'opposition au PDS en son temps avec Karim bi gars yi dugalee loolu mais dafa ne d'accord nañ ko saytu mais nañ ko saytu du ça veut pas dire que dañu ànd di comploter voilà ça n'a rien avec ça cest à il faut aussi ñu bañ ñu ñu ñu écarter wu de l'agitation médiatique wala ñu bëgg a l'image du pays gis nga tey euh, Abba Sénégal amul benn pays bu am trajectoire démocratique bu dul am ay suuf mais éviter de peindre en noir notre démocratie là non tey actuellement le le le Sénégal sa démocratie en sort grandie parce que tey y a une expression démocratique de tous les pouvoirs ñun ñaata revers lañ am juridiquement ci année bii wala les deux ans là le pouvoir mais nee mais malgré tout ça à chaque fois que ñu am lu favorable un rek ngeen gis ne voilà c'est la catastrophe c'est problématique il faut aussi ñuy am bonne fois le président Macky Sall li mu bëggoon cest à moom processus bi mu déclenché woon c'était que ñu dem vers une élection inclusive waxtaan juboo ci lépp ba nga xamante ni ëllëg dinañ parer képp koo xamante ne da am beneen intention pour instabilité ñu parer leen la parce que nag ñun suñu suñu réew mi am nañ maturité ah on a surmonté pas mal d'épreuves c'est par la première fois lañ am ay obstacles mais malgré tout sax mu dégager voie ne nañ leen waxtaan ñu yaatal de façon man bokkatuma mais loolu kay ku la ko wax mais nga xam ne li mu bëgg rek mooy tey ñu ñu dem élection xam nga yaa ngi koy wax sànq ne Wade mais bu ñu demoon tey Wade ni gagné ah ñu ñu écarté ko defal ko zéro son second ñëw. c'est une crise mais loolu crise la. mais bien sûr non seulement crise la defal naa ko ma ñëw non seulement crise la. non non non defal non defal naa ko ma ñëw rek non seulement crise la. mais du exprimer la volonté réelle des population ci ça la problématique la sincérité tey loolu yëpp loolu yëpp lañu la ñu doon jéem a éviter ñu ne nañu xool ay conditions yoo xamante ni dinañ ci dem ba mu am en tout cas parfait le maximum de consensus le maximum de consensus tey tey c'est pas parce que dañoo def euh, vague de libération Amadou que ñooñu defuñ dara attention de. j'ai pas dit voilà voilà tey li fi amoon ñëpp gis nañ ko waxuma ni waxuma ne képp ku jàpp da def mais y a eu des exactions y a eu des morts d'hommes y a des propos yoo xamante ne euh, déplacés injurieux accusatoires ñiy jëm ci ay commandement commandement territorial ñii ci armée ñii ci magistrat yaay am na am na ay faits mais malgré tout ça président mi nga xamante ne mooy clé de voûte des institutions ne mënuñu dem ci mënuñu jéggi sa passage là. dans dans un climat trouble. ce en fait c'est ça. donc tu confirmes qu'il n'y a aucune contrepartie. non président moo jël décision bi de manière unilatérale. la contrepartie attendue par le président c'est la stabilité l'apaisement pour ñu dem. vers mais Pastef joxu leen benn gage contrepartie bu muy joxe. ah ah, ah, ah mu tudd. non man fekkee wu ma fi ñuy joxe ay contreparties. donc y' a pas de dialogue. voilà entre Ousmane en tout cas loolu mënuma ci avancer parce que xam nga aussi état ni muy fonctionner. à ton niveau ça man damay sincère te bay def. voilà je l' écarte pas nag mais dama ne président bu ñu ko jëlee de façon factuelle ci démarche am moom contrepartie bi muy xaar mooy Sénégal apaisé. des cœurs apaisés pour ñu mun a waxtaan. pour ñu mën a juboo man loolu loolu moom loolu man loolu laa mën a en tout en tout cas man fi ma toll man sama niveau de responsabilité loolu laa mën a wax mais nag quand même déglu nañ fi ay médiateurs attitrés reconnus dans l'histoire quand même yu ko assumé ah oui oui Atepa et et et non no mais attends no ma ñëw ma ñëw non Atepa non Babacar Atepa loolu yàgg na ça c'est une vieille proposition d'exil qu'il y a c'est Alioune Tine a assumé. qu'il est allé voir bien Sonko. Oui. la permission au contraire de ce que tu as dit il l'a dit. waaw quatre de temps la fa toog ñu ne ko doo ko gis mu ñibbi. loolu Alioune la. yow mooy mën a déggoo Alioune Tine mu wax ko. quatre heures de temps gisul Ousmane Atepa nee na dem na gisi Ousmane Sonko avec la permission du président. avec parce que première fois bi quand Atepa a voulu. Euh, non mais gis nga. nu mu tudd organiser. Euh, nu mu tudd un contact téléphonique. Macky Sall dafa bañ. ils ont tenté depuis six mois ils tentent. c'est ça la réalité aussi Amadou. xam nga lu tax je termine je termine Amadou. Atepa est parti sur France 24 defal ndax. Amadou li mu wax mooy. non laisse-moi terminer j'ai été sollicité par Macky Sall. waaw loolu waxam la pour entrer en contact avec Ousmane Sonko. loolu waxam la wax ji day leer. loolu waxam la Atepa est beaucoup plus de vous man su ma neexee je dégage en touche. waaw mais on ne nie pas am solo xam nga lan la. mais y a une volonté y a une volonté de rapprocher des positions. loolu c'est acte c'est. quelle position non mais bien sûr. quelle position d'aller vers vers vers un apaisement. mun ngeen ko rejeter mais il mais la volonté est là l'apaisement. Ah, amul ah, apaisement mënoo ko am te amul rapprochement convergence d'idées sur des faits apaisement y a pas voilà defal nank rek ñëw. apaisement a pas voilà donc donc léegi euh, si ma bëggoon. daaneel c'est par rapport au dialogue en tant que gis nga ñun ay acteurs politiques lañu de surcroît jeune il faut ñu jël la responsabilité de biaiser un processus gis nga tey dëkk bi aspiration la. nit ñi bëgg nañu waxtaan la conseil constitutionnel a décidé bëgg a taxaw fii naan dialogue amul lii mooy eh, terme de référence yi lii fi fii nga yem yemoo fii loolu da ngay da da ngay def excès en tout cas du say prérogative gis nga tey euh, euh, consultation du monologue dañuy waxtaan. Mhm. ñu teg la problématique defal ndànk rek ma ñëw ñu teg la problématique. ñu xool ndax délai yi mën nañ ko respecter. Mhm. ndax dañuy. compressé mais loolu échange la. Ah, encore que le le cette phase là ne concerne pas uniquement le président et les les les les les candidats a également les les les acteurs qui participent à l'élection mais loi d'amnistie bi. oui ànd ngeen ci wala da ngeen ci. non xam nga gis nga gis nga euh, ñun ñun au niveau de de l'APR lu nekk la ñuy wax voilà maanaam euh, euh, gi en tout cas li ma gis ci transparence ak démocratie interne dans ce parti là man yéen na ma secrétaire exécutif lañ toog une bonne une presque cinquante cinquante beaucoup de responsables attitrés ne ils sont contre parce que avec des arguments d'autres pensent que Sénégal ak loo ci mënte wax it jàmm jàmm ak paix moo jiitu lépp donc ku nekk ak say kii le le président apprécie donc tey am na ñu si bëgg ñu ñoo xamante ne jàpp nañ ne eh, yomb na trop li nekk ñu def ko fi assumer ko ñoom ils l'ont assumé ah taal ay université yàq ay magasin jàmbur téye dëkk bi rey ay nit. Hmm. assumé mais bien sûr assumer ko ñi ñi nit ñi jàpp nañ ne ah tey même Khalifa Sall sax loolu la insinué que il faut ñu leeral ko. donc loolu aussi dans notre majorité am na ñu jàpp ne. dañ ko war a leeral war a leeral. Ah, mais nag aussi am na ñoo xamante ne jàpp nañ ne Sénégal moo gën a rëy lépp. quel que soit jàmm paix stabilité lu mu la mun a may moo ëpp lépp. loolu aussi c'est c'est un point de vue mais li ma bëgg a wax rek mooy ñun ñi nekk ci acteurs politiques yi bu ñu jël ay point de vue ferme dans ce qui se passe le président Macky Sall defal naa ko ma ñëw rek le président Macky Sall responsable la. kilifa la. Mhm. acteur bu majeur la ci suñu démocratie. tey décision bi jël nañ ko répondre na dina ko exécuter. Mhm. n'est-ce pas. bien sûr nag dañ koy waxtaanee ba mun a am consensus ci li mën a nekk. y mais bu ñu taxaw ah. bëgg a nekk boutiste quoi. voilà. pas mal avant le loolu c'est ça dépend ci waxtaan bi rek.